Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor. tur naka la. man Mor lan may wax. Mor Sarr nga nekk courtier. waaw Mor Sarr nekk courtier waaw. lan mooy métier courtier. métier courtier. mooy nit soxla benn affaire ah nga xam ko maîtriser ko. Hmm? nga nga nga nga wax ko ko liggéey la rek métier courtier métier courtier liggéey la liggéey la te dafa war a nekk liggéey bu noobul nag liggéey bu noobul la mais liggéey bu metti la mais liggéey bu ànd ak xam-xam la war a doon xam nga waaw man dama yëngu si dama yëngu si liggéeyu courtier mais courtier bi ma yëngu damay joxe ay magasin damay joxe ay néeg damay joxe ay studio damay joxe ay apartement apartement am na deux chambres salon am na trois chambres salon am na quatre chambres salon néeg am na néeg simple am na chambre salle de xam nga waaw yooyu daal moom damay yëngu si yooyu waaw des fois ñu déclaré ma na ma kër gii day jaay bu ma ji gisee client bu bëgg dama ko yóbbu ba si ki ma ko déclaré waaw. Astou Golf nga nekk fi courtier. waaw courtier laa fi waaw. Khadim lan mooy métier courtier. genre business la rek mais dafa am niveau boo xam ne foofu gaa yi ak fi gaa ak fi nga xam ne nekk fa quoi ñu bëri jàpp courtier mbirum triant la wala mbirum leneen ak leneen quoi mais on tàkk du loolu parce que damay wax chaque jour rek nit di nga jël benn léegi am foo ko yóbbu kon te ji boo xoolee exemple exemple mu naa ko joxee. ci Boubacar jàlloo animateur la woon si rajo mais fu mu animateur te ñu bëri ñu ngi bëgg nekk animateur kon mbirum coutier noonu la demee te di nga ci nekk am am na si tool loo xamante ne ñu bëri bëgg nekk mais nag nekkul ne loo xam ne lu facile la facilement métti na méttiwul waa métti na méttiwul parce que di ci jànkonte lu ne léeg-léeg nit dinañu jox la xaalisam ne la wutal ma xëy jour ne la bàyyi naa nga remboursé a affaire xaalis affaire yooyu quoi waaw nekk dara lu xam lu métti la quoi vraiment. courtier bi ngay nekk fii nii di taaba taaba. yaa ngi ciy gis sa bopp quand même. gis gisuñ ci dara na ma yàlla wàll gis man daal ñu ngi sant yàlla waaye wax dëgg yàlla daal daanaka coono bi ëpp waaw coono bi daal moo ëpp moom wax dëgg yàlla moom. aywa ñu ci am wecceet nag wax dëgg yàlla mais daal coono bi daal moo ëpp daal moom te li ñu si tax a dugg itam ñàkk pexe la ñàkk suñu jàpp kese moo ñu si tax a dugg waaw mais bu ñu sañoon wax dëgg yàlla duñ ci dugg moom ndax. waaw temps bi nga ci jot a def ana lan nga ci dund loo xamante ne neex na la. non man kay dëgg la wax ku jéeg moom naqar kese laa si dégg moom amu benn amu si moom wax dëgg yàlla maa ngi ci santal parce que maa ngi wér ah, maa ngi ci naan ndox ma maa ngi ci yéey maa ngi ci sama gerte caaf wax dëgg yàlla maa ngi ci sant yàlla baax ngi maa ngi maa ngi wér mais wax dëgg yàlla moom ah, maa ngi ci jëm sama waale pour maanaam loo xam ne benn départ boo xam ne mën na benn occasion bu ma ko si amee mën a defal sama bopp ko si ba léegi waaw moom moom moo ma si tax a dugg mais ba léegi amaguma si waaw maa ngi ci am wéccet moo xam ne maa ngi ci naan ndox wax dëgg yàlla mais mooy loolu daal et puis gënalu ma sax man lu ma doon gënal maanaam maanaam am loo nga jàpp ci leneen daal mooy lii daal wax dëgg yàlla c'est liggéey la sax moom d'accord mais man daal liggéey bi daal ñàkk pexe la daal laa ko jàpp sama pour ci man daal ñàkk pexe la daal wax dëgg yàlla waaw parce euh, magee naa yenn yenn liggéey mënatu ma ko def waaw donc moom ci tax a dugg quoi wax dëgg damay fréquente fii mais golf laa dëkk yàlla def na ko samay xarit nañu mais ma gis tam ni muy dawalee ma xam ne que dëkk bi métti na daal mais problème mu dëkk bi lu mu méttee yëpp mooy location. c'est-à-dire location bi luy gën a waral méttit bi mooy les gens li ñuy fay lu ñuy kii dafa dafa cher en même temps trois mois yi dafa bëri trois mois yi vraiment dafa bëri boo xoolee da ngay gis benn courtier bu benn waay ñëw ne dama bëgg appartement cent cinquante mille même pas quatre mu ñëw ne mu wutal ma feneen parce que du ko mën des fois am na agence sax yoo xam ne dañuy laaj quatre mois ak agence yi te agence yi une ñu yóbbu la une ñu amee la une nga amel leen loolu la dafa metti dafa metti man nag dama doon ñaan tey am maanaam ñu jël courtier yi ñu jël locataires yi ñu jël propriétaire maison yi ak waa gouvernement ñu toog waxtaan ñu xool nu ñuy diminuer charge yi parce que dafa metti da ngay fayee ku ñëw li nga am yëpp ci location nga koy teg eh, loolu la woon. abi euh, maanaam état bi reconnaître ñu quoi bu baax baax baax baax donte dañ ñu utal ay ñu nekk professionnel quoi ñu utal ñu ay badge wala ñu liggéey ñu xam ñu bu baax ñun ñooy kan ndax ñun li ñuy def nii baax na si population bi torop sax. lu tax mu baax mooy des fois ngay gis ko bëgg néeg du xam fu mu koy utee ji nga gis ko bëgg appartement du xam fu mu koy utee ji mu ñëw si yow nga yombalal ko ko facilement mu am fu mu dëkk kon courtier liggéey la boo xam te ni liggéey bu jaar yoon la donte nag du courtier yëpp ñoo jub donte du courtier yëpp ñoo tegu si dëgg mais man moom sama bopp laa xam man li may liggéey dama koy teg si yoon quoi waaw. am na fekkee nga lekk ko da ngay am ak moom problème. waa da moom problème mais nag ça dépend di nga ñëw di def contrat bi. parce que contrat bi ñu ko xasee ba signé rek commission de courtier bi moom bu ko fu mu dem si àdduna bi da ngay perte. kon day am contrat contrat boobu nan lay demee yow ak client bi. non contrat bi bu dee yaa client bi yaa borom kër gi la. borom kër gi deux mois lay jël si xaalisam. yow yow troisième mois bi yow courtier bi yaa ko moom. mais troisième mois bi du maanaam amul fenn foo xam ne kii nañ ko fa quoi bind nañ ko xam lu lu nu si kayit moom nekkul valable voilà. ndax bu ñu waxee courtier rek benn baat bi lañ leen di tegal ay triant lañ ñoom ñëpp ñoom ñëpp a yem. man nag loolu tax moo gën a tax sax bu demoon tax du ma wax si affaire courtier sax mais loolu moo gën a tax ma ma bëgg si wax quoi loolu moom loolu moom loolu moom. loolu moom man du ne a amul si sax mais mënul nekk ñëpp moom ndax problème mu trian problème mu problème mu leneen loo xam ne au contraire loo xam ne lu jubadale la moom du si courtier kese fépp la am waaw fi liggéey bépp la am donc nag courtier na da ci xëy na da ci gën a bëri parce que da ci am da ci ci ëpp avantage parce que courtier moo nekk loo xam ne nii tey mën na la wax loo xam ne nii ne la am naa fee dara xam nga yow xamoo da ngay mën a gëm waaw maanaam daal occasion triande la boo bëggee triande moom pour nga am occasion la daal pour nga def triande quoi mais nag du ñëpp nag wax dëgg yàlla nag moom du ñëpp nag moom ndax man xam naa si ñu bëri ñoo xam ne nii dañ koy def mais loolu moom duñ ne ko ñëpp te man dund bi nag la ñuy taaba taaba di am lu ñuy suturloo ak seen waa kër waaw mais loolu la c'est que Sénégal moom manqué organisation parce que lépp war na nekk organisation courtier yi war nañ mën a organiser tey par exemple ñoom mii fii nañu yendu du matin au soir le dimanche nga leen fi gis kon tey bu ñu bu ñu monté woon benn association wala dara ñu xool ñu leen di formaliser là dina gën a dina gën a taxaw mais li yëpp ñàkk manque d'organisation moo ko waral mais bu ñu organiser woon kon heure bi dépassé nañ fii bu yàgg bu yàgg parce que tey coutier bu si nekk yaa ngi jéem a xam loo mën na yóbbul sa kër pour dem taaba taabal mais suñ ko organiser woon kon kon kenn waxatu ko vraiment kenn waxatu ko luy fi luy fi njaboot daal moo gën a jafe luy fi luy fi jigéen célibataire bu jigéen moo gën a jafe waaw ñaar yooyu moom moo gën a jafe si Dakar fii moom. luy fi célibataire moom moo gën a yomb nga luy fii koo xamante ne jaboot la. waaw mais tamit euh, dañoo wax que ni métier courtier bi comme soo bëggee ndéek wala nga bëgg kër. Euh, dañ dañ leen di fay déplacement déplacement boobu bu ñu la fayee te amul te ki euh, ki la ko fay amul léegi kook nan lay def da ngeen ko koy remboursé wala loolu nan lay demee. waaw man déplacement dama koy laaj déplacement c'est normal lu normal la si condition bi nga koy euh, waxee nit ki te fekkee ne da nga dañ laa wax na la. du fekkee ne dana la studio laa bëgg ah studio bi nga expliqué ko studio américain la wala studio fermé la studio américain la non fermé la wala fermé la wala studio la boo xamante ni séparé la chambre salle de bain la salle euh, waañ douche publique yooyu yëpp da nga ko koy ba mu leer ko nga wax ko koñ bi mu nekk wax ko niveau bi mu nekk su ko arrangé bay dem nga ne ko ah sëñ bi wala soxna si mun nga ne ko léegi kat suñ demee su fekkee ne yow si yow rek la desee desee wut si man wan naa la lu rafet wan naa la lu baax wan naa la lu nit mën a dëkk nga naan sama xaalis suba laa koy jël wala gannaaw suba laa koy jël bu boobaa war na laa jox déplacement 2000 ndax déplacement 2000 boo ko déggee si ngay jënd crédit si ngay si ngay jënd crédit si ngay def say déplacement di wootee di wuyu xam nga kon di paas kon normalement ki nga xamante ni lenn daal la ñuy bañ a déplacement man client bu ma am man Mor Sarr dama lay protéger protéger bi ma lay def su fekkee am naa sama produit yi maag borom kër gi danañ ànd moo wax ngay dégg borom kër gi dégg courtier warta laal xaalis en même temps hmm. courtier warta laal xaalis courtier dalaa war a wan fu nit war a mën a dëkk fu baax fu pare yaa ngi dégg mu yóbbu la wan la boo bëggee da lay war a yóbbu ba si borom kër wala mu yóbbu la ba si borom agence hmm. mais courtier warta laal xaalis client yi ut nag nan am fulla si loolu am fayda si loolu yaa ngi dégg ba tey man bépp client bu mu am maa lay protéger si len su fekkee ne benn sama beneen moroomu courtier moom mu déclaré produit bi ñu dem produit bi melu na war a mel danaa na ko du la jox un franc du la jox déplacement mais su fekkee ne produit bi tegu si fu fu baax ah fu mu nit mën a dëkk ah mu ko defee mu desee si client bi client bi naan sama xaalis suba laa koy jot gannaaw suba laa koy jot dama naan la jox ko déplacement 2000 soo ko joxee déplacement 2000 boobu man mi yóbbu client bi damay am 1000 francs kii ubbi ku ubbi bi day am 1000 francs. courtier yi aussi dafa am benn baat bu ñu leen di bàkkee. suñu waxee courtier rek li ñu ciy teg mooy triant la. waaw boo gisee la bon dañuy wax loolu ah mais man gis naa ko ñoo xam ne vraiment duñu ay triant parce que des fois man tey mën naa am ay nit yoo xam ne dañ soxla. mais dama dama ci diw dama ci diw parce que kooku yàgg na liggéey war na yàgg na leen woon produit loolu laa leen doon wax léegi ma ne euh, lépp si ñoom la rek suñu organiser wu woon mais tey boo demee case ba tey maa ngi génn benn domaine taximaan yi dañu organiser wu dem nañ ba am ba ay GIE pourquoi pas ñu créer benn GIE structuré mu am président vice président am seen compte am seen tontu mais loolu yëpp buñ ko organiser woon kon dépassé nañ fi loolu rek la loolu la parce que ku nag bokkuñu bon am na ñu baax am na ñu malhonnête am na ñoo xam ne vraiment ils sont mais tam nit yi bokkuñu daal waaw loolu laa gis quoi. mën nga tëb tëb rek def ko wala. non non non vraiment man gisuma ne nit war na mën tëb tëb nekk ko quoi parce que am na fooy jaar ak ak ak expérience bi ciy am ak façon nit bu ne nga gis quoi. kon euh, fi ngay jaar ak expérience bi loolu nan lay demee. fi ngay jaar maa mooy di di ànd ak ñi nga xam ne ñoo la si njëkk quoi. léeg-léeg nga dem si agence yi léeg nga dem ba Dakar wala ay Nord Foire di collaborer ak yenn agence yi di liggéey ñoom ñoom tam bu ñu amee produit woo la ñu bu ñu amee client tamit ñu soxla fii ñu woo la yooyu daal expérience bi gën a looy gën a dem rek sa xel mi di si gën a kii quoi dañ leen di bàkkee ne ay triant ngeen de parce que ñëpp loolu la ñu wax. waaw dañuy bàkkee ne ku ay triant mais nag ñëpp yemuñu quoi vraiment parce que boo ñëwee pharmacie golf di nga xam ne ñëpp yemuñu parce que fii euh, euh, def naa fi yaakaar su ma juumul 11 ans xaw ma mais mosuma ñëw fi ñu jàpp nit ci ay koppar yooyu si xaalis. te nekk si te tënku si mooy liggéey boo mën di liggéey na nga ko teg si yoon na nga ko teg si njub na nga ko teg si yar ah na nga ko teg si xam-xam waaw. man daal bëgg naa état état bi protéger courtier yi man nag moom maa ngi nii man si laay yëngu quoi waaw mais yëngu bi mu si yëngu it damay bëgg nit ki li muy soxla bu ñëwee ma jàppale ko si mu facile mu yomb xam nga te dimbale nit ñi si ah, si si location yi borom kër yi dañuy laaj trois mois. Mhm. te loolu dafa metti bu borom kër laajee trois mois courtier bi lan lay mën a laaj client bi loolu day metti man am na ñoo xam ni boromi kër déclaré nañ ma seen kër na ma am naa fi néeg. Mhm. ma néeg 30 000. ah ñu daan liggéey muy laaj deux mois man ma laaj troisième mois des fois man may wàññi sax samay troisième mois di ko dimbalee clients yi mais borom kër gi bu demee ba ne léegi man trois mois lay laaj ma ne ko man man Mor Sarr du doon na man maa lay sa kër man boo mu waxee produit boo xamante ni man damay wàññi produit wu jàmbur dangay ñëw déclaré ma saal na ma saal bi dama koy loué soixante mille ma ne la fii cinquante mille la mën a wala quarante mille la mën a am nga may loué loo néeg ma la néeg bi trente mille la mën a am mais mënut a am trente cinq da nga may loué ak lu ma lu mu nag su fekkee ne dëkk naa sax man foo xam ni fajaa si cité Fadia man dëkk naa fa ah kër gi ma jàkkaarloo kër gu bees teg mu nekk deux chambres solo ñu ne dañ koy loué deux chambres solo deux cent mille ah ñu wax ma ne ma deux cent mille lañ koy loué donte fa dëkk donte xam naa ko mosuma koo déclaré client. Setsima TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te